benn waxtu di waxtu xibaar yi ci seen première chaîne de télévision privée xibaar yi nag ni ngeen ko xamee tey li ci nar a gën a fës nag doon procès kii di Hissène Habré mu ubbi tey nag ci euh, Sénégal doon euh, procès boo xam ne procès bu historique la ñu ko qualifié mu tàmbali nag euh, tey ba mu teewee moom moomu Habré ca kanamu chambre chambre africaine extraordinaire kii di Habré fësal na meram di wax ni amul avocat. mu wax ni lile yëpp nag complot la ñu ànd nag ak euh, kii di euh, Moussa Sène mu nga foofu danañu jébbal tuuti ci euh, kanam lan moo fa xew Habré nag nekkoon njiitu càdd diggante mille 1982 ak mille 1990 booba ba tey nag mu nekk exil fii ci Ndakaaru ni leen ko waxee rek niki ci suba ba tey nag kii di El Hadj Malick ak euh, Moussa seen ñoo ñu teewal fële ca euh, tribunal ñuy laaj rek bu fekkee Moussa yemb na ñu jéem a jokkoo ak moom mu wax ñu nag tey lan moo jot a xew fële ca tribunal. tribunal bu Dakar chambre 4 ku daal di dalal waaye nag gis nañu ni sax jot na am ay xëccu yu nga xamante ni jot na ci xew ba tax na ñu ni après nag nangul woon dara ngir daal di teew ngir daal di wane boppam ci fi nga xamante ni moom moo di biir euh, euh, procès bi waaye tamit euh, xëccoo yooyu ginnaaw bi mu amee am nañu ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo fi teewal ma ne ko al seen après di si ay avocat am teew nañu waaye tamit ñi nga xamante tey jii nii ñoom ñoo ñëw nañu ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo di victime yi ak seen avocat yi nga xamante ni ñoom la ñu àndal ci kaw loolu ñu gis ni kat kenn ku ci nekk pàcc bu ci nekk jot na wax waaye tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama yi li ñu jot wax leen moom mooy ci ni rafetlu nañu loolu jéego bi nga xamante ni Sénégal def na ko mu jëm ci wàllu procès bi moo di ak yi lu ni mel te ñun ñi ngi ko doon xaar ginnaaw ak yàlla ak juróom yoo xamante ni namoon nañu tey bu ni mel am ñu Sénégal jël tànkam teg ko ci xaatim ko kaw nag tey jii nii mu doon épicentre de la justice africaine ñu gis ni kon Sénégal tey jii nii def na jéego boo xamante ni am na solo loolu ci wàll wi beneen pàcc bi nga xamante ni moom lañ ci gis mooy doon nañu xalaat ginnaaw bi euh, layoo bi am ci seen diggante waaye nag avocat yi nga xamante ni tey ñoom ñoo doon layal seen après dañu mujj daal di retiré wu ndaxte dañoo daal di boycotté li ñu gis moom mooy que ni procès bi rax na leneen loo xamante ni jaaduwul te lu jëm ci wàllu yoon ba tax na ñoom daal ñaaw nañu njott ni ñi nga xamante ni tey ñoo nekk ci ginnaaw ak ñi nga xamante ni ñoo ko waroon a dëggal ñu mel ni tey ci nii euh, début ak ñoo xamante ni dem nañ sax ba laax nga xamante ni moom mooy son excellence ab euh, le président de la république laax ci ki nga xamante ni tey moom mooy ministre garde des sceaux Sidiki Kaba ñoom ñu ni jàpp nañu ci suuf jàpp nañu tamit ni lenn loo xamante ni moom moo nekk ci procès bi moom mooy daal am na lu jaadawul ba tax na ñoom ñu ni procès bi gisuñu ci seen bopp te gisuñu ni procès bu équitable la équitable boobu nag moom la ñi nga xamante ni ñooy yor ak ak yelleef doomu aadama yi eh, nekk doon nag sàkku ñoom gis nañu ni bu fekkee loolu mën Sénégal dina def ndam loo xamante ni ilaa yow mi diin dinañ ko ko daal di bàkke te dinañ jàpp ni boobaa jéegu bu rëy am na nga tax na ñoom it gis ni fi nga xamante ni la ñuy rek mooy te ni képp koo xamante ni njiitu réew nga wala nekk nga ci réew rawat na réewu Afrique yi daal di yor nag loo xamante ni tey dañ la ko dénk nga def ca naka su dul noonu jàpp nañ ni ëllëg sax loolee noonu am na lu njott lu rafet ni procès bi bu réussiré ëllëg tey njiitu africain yi dinañ leen jiitu dinañ leen daal di àtte ci juridiction africaine yi lii la ñu moo tënk ni Mame Diawar moom la ñu jàpp ci li nga xamante ni moo xew ci euh, palais de justice bu Sénégal fii ni nekk ci Dakar boole ci tamit door li nga xamante ni mooy tey le vingt procès bi nga xamante ni mooy procès bu Hissène Habré Moussa jaajëfal la rek ci nag ñu tënkalee la xew uh, foofe ca uh, tribunal xanaa ñu bàyyi la rek uh, ba ci kanam dem ci xibaar ci gàttal bi mu di nag épreuve baccalauréat tàmbali tey tamit ci Sénégal directeur office du bac di ñu xamal ni nag am na yokkute nag ren ji léegi lii di nag épreuve facultative yi ñu mën a wax rek ne jàll nañ diggante 20 ak 23 mai épreuve physique amoon juróom-ñetti fan. ci weerub euh, juin anticiper filo yi 19 euh, juin candidat yu takku nag di euh, composé tey ci Sénégal dinañ ci dellu si ci beneen jotaayu xibaar ñu jàll ci beneen fànn kàddu yi nag ministre de l'intérieur yëkkati ko di wax ne nag carte d'identité manqué wul woon lenn rek lañ mën a wax mooy liñ doon laaj moo bari Abdoulaye Daouda Diallo yëkkati kàddu yooyu niki démb ñu déglu ko ci micro Hawa Konaté rythme production bi bëri ba nga xam ne dépassé na maanaam kattan production carte dante yi euh, ba tax na nit ku nga xam ne à chaque fois su déposé woon si ëllëg si la ko doon am mu war a xaar une semaine wala deux pour mu jot ko mais euh, loolu firnde lu nekk rupture am na non mosul am euh, demande bi rek moo bëri woon loolu saafara nañu ko d'ailleurs dans tous les cas léegi benn débat ba nga xam ne amatul la di si aussi di rappeler ne que mënul am si dara parce que quand même euh, lu tax bu ñu am fii ñaari alternance mooy tax ba gars yi quand même war a delloo seen xel ba xam ne fraude administration nekkul si loolu je crois que administration bu ñu ñëpp naw la bu ñu war a féliciter la parce que c'est une administration républicaine ministre de l'intérieur yëkkati woon nag cadre euh, yooyu ci ndaje bum doon euh, dalal kadr ak euh, militant yu département bu Podor dañu si dellu si ci beneen jotaayu xibaar journée nationale direction générale eaux et forêts nag yóbbu leen fële ca Diourbel ñu ànd nag ak kii di colonel Beydi Ba nag ak délégation yi visitam bi nag bokk ci programme national reboisement door nag weeru mars ba tey li ko sabab nag doon samp lu takku ci ay garab ko ciy ànd ak reportage yu Pape Sayar Mbaye ci tournée nationale bi muy amal jëm ci programme jëmbat garab bi nga xam ne moom la ñuy amal njaareem dalal délégation bi bawoo ci direction bu eaux et nit ñi toujours dañuy foog ni euh, campagne de reboisement bi muy door mooy bi ñuy commencé jëmbat garab yi alors que campagne de reboisement daanaka mën a wax ni février mars lay commencé ndaxte boobu la ñuy commencé gindi matériel pour pépinière yi booba la ñuy commencé jël ñuy liggéey manœuvre yi léegi ci pépinière yi boobu la ñuy toppatoo ndox mi boobu la ñuy commencé jënd geen yi mbuus yi boobu la ñuy commencé jënd jiw yi di ko def fu ñu nekk ni tey ñu ngi daanaka ci dugg campagne ren jii mébé bi ñu am di jëmbat lu toll ci fukk ak ñett millions ngi garab chef de l'état président la république dafa jël ooy fa euh, forêt àll bi jox ko gëdd bu am solo ñun ñëpp gis ñu ni euh, def ñu dooleel def ñu euh, yëkkati moo tax ñu nit ñu ni ren dañoo bëgg a produire fukk ak ñetti millions garab li ñu bëgg mooy que ren sénégalais sénégalais yi programme reboisement yu munti am bu ñëwee forêt ñu mun a am garab yu soxla. ginnaaw bu ñu ko pépinière yi nekk ca Sambé ak ci Ngaabu directeur général bu Eaux et Forêts ci janoom ak taskatu xibaar yi. yëkkatee kàddoom di sàkku ci ñu ñu fal ci bokk moomeel yi ñu dugal seen loxo ci mbir mi. Saer Saint-Louis euh, lañ jëm foofee nag leader groupe Dandelenol moo fa teewoon ngir euh, màggal fa fanweeri atu musique Baaba Maal nag amal fa concert bu mag mu ànd ak ñi nga xam ne dañuy liggéey ci euh, wàllum ceeb ñu waxtaanee ko fa dañ ciy ànd ak reportage Moussa Diagne. gannaaw màggal ki nga xamee ni mi ngi koy màggal ak di ko wër réewub Sénégal ak itam bitim réew ci fanweeri at yi nga xamee ni am na ko ci wàlluk musique ki nga xamee nag moom moo di njiitu Dandele Niol di baba Maal moom nag amal na ab forum fi nga xamee moo di ci Saint-Louis di ci doon wax nag lu jëm ci wàlluk politique autosuffisance en riz ci teewaayu ki nga xamee ni moo di directeur général bu Sayed Samba Kanté kii di baba Maal nag moom wax na xalam ak xalaatam ci li nga xamee ni foofu la Sénégal war a teg tànkam ngir mën a développer mu ni nag faaw ñu boole ci lu jëm ci wàllu mbay la ak tamit lii di napp gi. autosuffisance en riz boo xam ne ñun am nañ capacité bi damay wax ne bu ñu góorgóorloo tuuti rek Afrique mën a relever les défis du millénaire rawatina nag fii nag ci vallée bi nga xam ni fa lañ nekk vallée du fleuve donc comme am nañu gëm-gëm boobu ñu ñëw àndandoog ñoom dinañ way dinañ fecc fii ci quai des arts waaye dinañ waxtaan itam ci loo xam ne lu moo ñuy tax a gis yoon. fu bëri jigéen yoo xam ne dañu am jom bëgg liggéey te am ay problème comme ni ma ko waxee sànq am nañu problème accès à la terre am nañu problème financement yooyu yëpp te gisuñu kenn ki nga xam ne mën na leen former mën leen orienter pour ñoom ñu mun a accéder ci lii ma wax léegi ñun nag ñu daal di essayer jouer rôle boobu. kii di directeur général adjoint bu SAED te moom nag conférence am mi ngi ko jëmale woon ci rôle bi nga xamee ni nag vallée bi ak delta bi war nañ ko mën a jouer ci biir PSE. ñu ngi koy jàppale. tey jii boo xoolee programme yi nga xam ne tëgg nañ ko ak programme yi nga xam ne ñu ngi koy déroulé ëpp na 200 milliards de francs CFA loolu yëpp pour que 2017 ñu mën a atteindre autosuffisance alimentaire en riz mais nag booy wax 2017 il faut que acteurs yëpp mën a xam ne boo xëyee boo ne 2017 da ngay ne ngoon la boo nekkee ci ngoon da ngay ne suba la bu ñu defee noonu rek lakkaloo yaakaar naa ne objectif bi donc danañ ko mën a atteindre. noonu sax mu wax nag ni vallée du fleuve Sénégal am na nag rôle bu am soro boo xam ni war na ko jouer ndax nag lépp loo xam ni jëm na ko ci wàllug ay potentialité hydro-agricole moom nag am na ko. Moussa jaajëfal ànd rek ak euh, Moussa seen ak si ci euh, ñaareelu pàcc ci euh, xibaar yi Moussa seen jébbal ñu tey lan moo gën a fës ci yéenekaay yi. askan wi. ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu def faxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilaay jàmm kaw def lañ koy dooree ak laas yéene kaay xëy nag ci xëtam bu njëkk ànd ak imaam El Hadj Alioune Moussa Samb bu nag grande mosquée bu Dakar ah ci julli gii nag di julli korite gi am ñu ni nag xutba ba nga xamante ni moom la fa yëkkati ñu ni nag moo yëngal nag li nga xamante ni moo di jamono rawatina Sénégal gi le ba nag la ñu dóor ca kawam yamuñu ca de lenn waralu ko nag lu dul mandat Macky Sall bi nga xamante ni nag moom lañ ko fal sept mu ni ko naka wàññi gala imam bi di bañ na def sept yi nga xamante ni moom lañ ko fal réew mi quotidien dellu ci kaw tëf ga ni ñu nag loolee noonu ma ne ko moom merloo mbokki jullit yeeg mbokki taalibe ya fa nekkoon ca grande mosquée ba ba xam ca la yam mu ni déedéet kay kaw tëf yéen kay bi ni ñu la tribune ni ñu moom de ma ne ko imam ba ci néegu suñu borom bi la daal di yëkkatee kàddu yi ni Macky sal ma ne ko neel maa waxoon waxeet ndaxte la mu waxoon ma ne ko la bëgg nag mu denc ba set wecc loole nag na ma ne ko yëkkatee ay tontu Babacar Gaye porte parole parti démocratique sénégalais ni daal tegginewul ndaxte na ma ne ko dañoo aada woo ni ñi nga xamante ni ay nit yu lañu duñu wane mbir mi waaye nag te Macky Sall yëkkati ay kàddu nag njiitu réew mi di xam ne nag de kii nga xamante ni moom moo di imam li mu wax du leen lu dul feeñal nag naa ma ne ko fi nga xamante ni moom la péete ñakk ko wane day xañ a sa ah ñu ni collectivité ba nag la imam bi di sàkku njiitu réew mi recevoir leen nag ca pale ba ah yeneen jàngat ñi ngi ci biir de waaye direct info ni ñu ah suñu imam Alioune Samb de nërmelu na nag mayal bët yéene kaay bi la solo yéene kaay ni ñu nag korite gi nga xamante ni nag doon nañ ko daal di amal xëtum yéene yéenekaay bi def na jàngat lu jëm nag ci jàmmoo nekk benn nag mooy li nga xamante ni moo fës ci ba yi nga xamante ni imaam yi yëkkati nañu ko njiitu réew mi nag di Macky Sall moom nag di woote nag jëm ca liggéey ba jàppalante gi ci biir naa askan wi am na nag ñu ñu joxu njéggal lu jege téeméer ci ñu nga xamante ni ña nga woon ca prison ya Zoom info daal di dellu si waat nag ci korité 2015 gi le nee na ca Tiwaawan de nee nañ nag naa mën a ko ñu daal di dellu nag ci li nga xamante ni moo di ndono gi nga xamante ni nag mag ñi kilifa yi diine bàyyil nañ ko fi jëm nag ci wàllu l'islam loolee la Tiwaawan woote booba la jamono Touba nag ak Serigne Sidi Mokhtar Mbacke xalif général kullu murit moom nag da ma ngay sàkku ci ñu daal di gën a yeesalaat te gën a rafetal nag diggante yi ca lañ fa daal di toxoo jàll ci le quotidien yéene kaay mu tàbbal ñu ci nag li nga xamante ni moo nara ma ne ko lëmbe nag nikki ki tey jii nii ma ne ko askan wi ci xibaar bi biti réew ak ma ne ko biir réew mi yëpp di ko waxtaane mu jëmti nag procès Hissène Habré yemboo nag ak li nga xamante ni moo di baccalauréat bi ñu ni Hissène Habré nii tey la koy daal di amal ba xam na ma ne ko dana ca jàll am déet lu mu ci mënti doon daal ab sarax ma ne ko la ko Europe na ma ne ko jàppe ndaxte mbir mi ma ne ko doon nañ ko doon xaar yàgg na lool ni ki tey nag ma ne ko la daj dëpp gi ndaxte wiiri wiiri jaari ndaare yéene kaay bi ci biiram bu pexe sottee de mel na ni naa ma ne ko nag ba ñu nar a nakkal nag di Hissène Habré ma ne ko jomee nag na ma ne ko ca na ma ne ko ña nga xamante ni ñoo di gis-gisu ma ne ko waa Europe biti réew yéene kaay bi dellu di ñu xamal lu tolloog ñaari téeméer ak ñaar ci ay ci ay taskatu xibaar teew di fas yéene nag daal di béral lépp lu ci xew enquête yéene kaay di ñu xamal ni ñu moo def am déet lum ci mënti doon daal ma ne ko yéene kaay bi nee na ñu niki tey daal ma ne ko lu ci bëri dana ca daal di leer mayel bët yéene kaay bi ci biir ak ci biteem ñu daal di jàll ci grand place yéene kaay bi tabbal ñu ci wàllu politique rawatina candidature présidentielle ak nag lu jëm ci succession parti socialiste mu ne nag fi mu toll nii fépp nag ma ne ko lañ koy uppee ndaxte nag mbir mi nag ci lépp naa ma ne ko la tagga témbee Ousmane Tanor waaye dem na ma ne ko ña nga xamante nii nag ñooy di ñooñu xalifa ak xalifa li nga xamante ni moom la ñu bëgg ca moom mu daal di jëm ca kanam ak li ko bloqué mayel bët yéene bi ñu ni bureau politique bi cadre yi ñu ni jigéen ña ak ndaw ñi fi mu toll nii nag xaajtaloo la ñu nekk mayel bët yéene bi ngir am ci lu la leer nañ ñi libération yéene kaay ànd ak ñun nit ñu jóob si dee ma ne ko moom nag naa ma ne ko joxoñ nañ ko baaraamu tuuma ca la nga xamante nii nag moo di tëgg nga wëndeelu gën doon wax ci mbirum ambulance yi nga xamante ca xayma woon ko nag ci marché 10 milliards ak mékomar ñu jàll ci stade yéene kaay ànd ak Isiar Dia moom nag fi mu toll nii attaquant wu Lyon yi mi ngi dellu nag di xam le ni dellu na France ngir nag daal di a moo ne ko rebondir wane waat boppam ci li nga xamante ni nag moom moo di mëninam di xam le ni nag ñàkk déggoom ak ki nga xamante ni moo di entraîneur Koto moom nag marqué na ko lool suñu làmb yéene kaay ànd ak si la président wu écurie Mbour ma ngay dellu di xam ne ni B52 nag de moo gën a blende fuuf kii di Modou Lo yemuñu ca ma ngay dellu di xam ne ni le 25 juillet victoire ba la ñu fas yéene fête ca lu tëw xam daa sottiwul li ñu war a wax a bari lii di comp as ci yéene kaay yi jàngeen jëf Sassène euh, di la jaajëfal jaajëfal it euh, ñi ñu doon euh, seetaan juróom-ñaari waxtu ñu teewaat bu neexee suñu borom jébbal leen yeneen i xibaar